nawek man transparent nawek man accountable ala minister of energy man transparent man accountable and Gambia government at uh, state house they are not transparent and accountable about nawek so this is why nawek issues should go to court man dama feel ne it's outright incompetence and people know xam ne amuñ yërmande yërmande lañ jël jox leen ñoo ji ji ñooy ñooy ñoo jiite institution boobu noonu ñu soxor ñu bon ñu iñañetti ñu amul yërmande ñu amul remorse seen sens bisu and gross incompetence moo fa nekk because these are basic basic things yoo xam ne war nañ ko mun a def jaɓe ñaame nene akkole yatale wala nan koye mburu fof ko farni iɓe sonnaama ko kole yala kaali añannda kole yala le asi kole ñim baadi yar bi jeem lu wal ni si loolu lebel lan ah, exactly eh, eh, jobaate jobaate nde gambia la bari fo mbiyam gambia de ultima because ila relationship ni baro and npp hana ya manta silo ke ka ikaw support ani so wo relationship me ka foten mhm. wo manyane kala kudi malon ko ete nyanta wala jibela e yanda men jibela mun wala belari mm munsila liberating ethical standards Very ya understand mm-hmm. a ah, nyim bunda membe loring mm-hmm. abelore ah, mun dalile kan yaje nyim membe nyim place do comme president muna mana do court or minister so that hanin ndengo president support no party kono party kono mantanya manga lo ngafa nyim mantanya eh, discipline mo amu ci liggey lu way def mun na koo def because Barrow dafa jël euh, Gambia comme football club football club lako def rek nga play ba sona ñu ne wa kay nga noppaleeku ki duga nga ñëw a génnaat duga loolu def loolu moy moy moy dëkk bi because agreement ci bari dañ ko sign ak nguri Sénégal nguri Macky Sall 2017 yu bari la gay sign ban la ci won Gambien ci kanna ni ngi nyilin ka jan ko ni eta man sa kunna do ko la fo ba ta mbe batu kan jabbe eh ite men felen design te be nyinte bo men design ite ko ye principle le landi ite fon la kuwoto ye principle le landi nte ko o principle banko ji be sila wala banko na fala ani eh? o principe re banko na fala ani o banko na fala tele ni to ya re banko na fala

gis nga nguur kenn du ko amee si kenn du ko anee si affaire kii suma xarit la kii def ma dimbale politique maadi bii tey gis nga doom bi gis nga lu taalibu di wax nii ne nga liggéey si nguur nit mun naa ñàkk a liggéey si nguur yi dimbale nguur ñoom mënu ànd liggéey si moo tax ñu ne réew dafa baax nga am opposition bu strong si réew because ñoom mun dem ànd liggéey nguur am na ko xam ne mu ci wax yow opposition yow yow yow information information maa di am tey bu a am tey si nekk si nguur la mën a am Abe bɛ fatafatali ni kɔlɔsi ɲaami so tɛ buka kono. ka ko beteya hospital man beteya kunna te tombole tomboye samba kmc nannafulo katar je mc bi je fo moolu ɓe kal yaɓe nen kono moolɓe kumbo kan lolle ɓe marché lakkumola fo nana malafi almalafi tangaray e ke secretary général du commonwealth <coughs> ah it is uh, kaaje ko this country uh, ah, telewnin toña ye soto uh, konti boro wolom foundation ati pour teleng nin toña e sotong pour banko e faleng